point du jour bi euh, professeur ñu gis ne carrément feebar bi mën nañoo jàpp ne mu ngi ci courbe ascendante am euh, nombre de cas yi ñu ngi wéy di augmenter euh, nombre de cas graves yi aussi seetlu neen aussi bëri na fi lool li minutes yi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi ñoo ëpp ñi nga xam ne rek am nañ ten fu mu toll ni Sénégal ci wàllum décès ñoom ñu ngi ci 42 personnes yoo xam ne rek ñàkk neen feebar ñàkk neen seen bakkan ci feebar bi di coronavirus ban jàngat nga am ci évolution maladie bi de lutte yi nga xam ne président de la république teg na ko ngir xeex maladie bi. Euh, en tout cas bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xam ne moom la ministère bi joxe. Euh, gis nañ ni euh, ñoo ngi ci phase boo xam ne une phase man nañ ko tuddee ascendante ci fànn yëpp mi ngi yokku nombre de cas yi gis nañ ni par rapport au 23 mais mm-hmm. bi président di décréter en tout cas état d'urgence bi. Euh, ñoo ngi woon ci 79 cas dont 71 sous traitement 8 guéris actuellement ñoo ngi ci 3739 cas mhm. donc il y a pas photo euh, sur ce rapport alors boobu aussi on était à zéro décès actuellement ñoo ngi ci 42 euh, par rapport toujours aux informations du ministère de la de la santé mhm. Euh, boo xoolee aussi nombre de guéris ak nombre de personne sous traitement quasiment bare soreyantewul bari. Mm-hmm. parce que ñi nekk euh, sous traitement ñoo ngi mille huit cent cinq tandis que les guéris ñoo ngi ci mille huit cent cinquante huit. Mm-hmm. donc ñi tane ñoo ëpp tuuti. Mm-hmm. alors <coughs> loolu gis nañ ni kon mi ngi yokk la phase mi ngi ci courbe bi mi ngi gën di yekk toujours. Euh, alors loolu est-ce que waruñoo mën a indi ñu def jàngat. <coughs> par rapport à deux éléments premier élément bi mooy gis nañ ci fànn yëpp. mi ngi yokku mais yokku bi aussi quand on prend en tout cas les données du ministère de la santé euh, de 2016 données yi donc ku dem site officiel bu ministère bi da nga ko gis. Mm-hmm. Euh, gis na ni cinq en tout cas onze euh, causes de mortalité yi Sénégal ñu ko jëlee tàmbali traumatisme ba ci onze yi ci ëppoon en tout cas ci euh, établissement hospitalier yi gis na ni on avait quasiment par jour soixante huit personnes décédées mm-hmm. par jour. 68 je vous dis bien personne yuy faatu ci hôpitaux yi. Mhm. waxuma nag case de santé ak centre de santé ci àll bi ah. mhm. dama ni ci onze euh, causes euh, de mortalité rek on avait 68 personnes yu doon faatu ci hôpitaux yi. 68 mhm. par jour. ça fait chaque 10 jours rek gis nga le nombre li muy def quoi alors actuellement on nous parle de. Euh, benn maladie boo xam ni tax na ñu terroriser nit ñi euh, tympaniser ñu bien vrai que man euh, xeebuma ko ndax luy gaañ nit donte benn nit lay rey mm. en fait lu sérieux la mais quand lu ko ëpp lu muy rey rek a nekk ci biir réew mi quoi qu'on puisse dire actuellement les spécialistes yi sénégalais nee nañ <laughs> en tout cas taux de létalité bi mi ngi toll ci 1,1 pour cent mm-hmm. man je dirais même non agul ci lool Euh, parce que y a une exagération même de ces morts là 42 yi ñuy wax ni ñoom ñëpp deewuñu ci Covid. Euh, mën naa la ci jox un exemple par exemple en Italie euh, le le centre l'institut italien de la santé def na benn jàngat bu am solo le vingt le treize. bu njëkk ba. avril le 13 mars plutôt 2000 2020 alors ñoom sur mille seize cas mm-hmm. déclarés décédés ci Covid 19. ñoom dañu def ay test mortem euh, post mortem bi ñu ko saytoo ba àgg ci 268 cas ci lañ gis ni seules trois personnes ñoo ci décédé ci Covid est-ce que gis nga li ma wax. Mm-hmm. sur 268 cas yoo xam dañ leen déclaré ni dañu dee ci Covid seules trois personnes ñoo ci décédé ci Covid bi te ces examens là defuñu ko fii Sénégal on nous dit rek que 42 personnes décédé na ci te gis nañ ñi ñu ko wax y a tellement de familles yoo xam ne génn nañu démentir l'État nii ñoom seen i parents décédé ci loolu. Mhm. notamment y a quelqu'un koo xam ne la a brandi même des documents pour wane ni moom amul fenn fu ñu bind ni moom parent décédé woon na ci Covid et pourtant boole nañ ko ci ñi décédé. Mhm. mais quand même ak lu mën a xew xam nga 42 sur 3 mois 3 mois ça fait 90 jours. 42 mhm. personnes sa fait même pas un décédé par un jour euh, par jour alors loolu euh, su fekkente ni loolu noonu demee kon. mën naa wax ne même si c'est en grave au Brésil si c'est grave aux États-Unis si c'est grave par exemple en Italie ou bien en Chine ou bien en France ça ne pas au Sénégal mm pas mm-hmm. loolu war nañ mën a permettre quand même ñu jéem euh, approprier maintenant en tout cas suñuy stratégie yi nga xam ne moom la ñu teg par rapport ñun à nos réalités bu dul dara yàlla suturaal nañu gis nañ ni véritablement yëf yi niñ ko soo sóore woon wala bokk en tout cas li ñu euh, euh, waxoon mm-hmm. ci tàmbali bi solo ay euh, secrétaire général bu directeur général bu OMS et cetera mm-hmm. il y aura en fait des millions de morts en Afrique en tout cas fii gis ñu fi des millions de morts mm-hmm. n'est-ce pas léegi nag jël nañu ay stratégies yoo xam si finalement man li ma ci gis rek mooy d'abord dañuy chercher te je l'ai dit ñi may suivre xam na ni lii je l'ai dit dès le premier jour euh, bi ñu gëstoo gis na ni il cherche à apeurer les mm-hmm. dañ bëgg a ragalloo nit dañ leen bëgg a tiital te xam nga nit ko tiit moo xale ñoo yem d'abord sa garde dafay baisser dafay impacter même ci sa santé ak sa système immunitaire mais surtout tu cherches juste kan moo may protéger kan moo may musal. Mm-hmm. loolu c'est un élément alors soo gisee maintenant nag mesures yi ñu ci jël euh, combiner ko moo lay wax ni la mais véritablement y a un problème état d'urgence fii lu état de ak état ñu ko jël y avait soixante onze oh, soixante dix neuf laa la wax cas. Mm-hmm. dont huit guéris actuellement on est trois mille et pourtant on passe alléger fi nekk les stratégies mais man personnellement je comprends pas mm-hmm. c'est-à-dire logiquement tu ne pas comprendre à <laughs> cas sous traitement. Euh, on on on kii euh, euh, on décrète l'état d'urgence mm-hmm. pour dire que l'état est grave je vous dis solennellement dellu leen ci kii euh, je vous dis solennellement sénégalais l'état est grave ah on est en guerre mondiale et cetera des choses yoo xam ne doo comprendre sax on parle même en fait de la vulnérabilité des États-nations de euh, peut-être de leur faillite même on euh, parle aussi d'un processus inéluctable pour aller vers un nouvel ordre mondial mais véritablement da ngay am problème loolu ça di dit que actuellement ñoom di am agenda bu bëgg a doxal. Mm-hmm. et c'est ça qui importe en fait le plus lu ñu war a gis nii mais c'est pas ce Covid là man du wax cette Covid ah ce Covid là du Covid bi moom mooy li nga xam ne moom mooy faagagal africain yi donc ils ont pris en fait euh, l'état d'urgence ce qui ne se justifie pas. Mm-hmm. ils ont pris des décisions yoo xam ne mi ngi impacté négativement sur la vie des Sénégalais man ci kaw gi laa jugee. ci kaw gi laa jugee dama la les les au moins. les pauvres yi yokk nañ leen. Mm-hmm. est-ce que gis nga le document <coughs> officiel la euh, stratégique bi ñu doon def pour euh, ak le fonds en fait euh, du Covid 19 ils ont ciblé un million de euh, de de ménages. Mm-hmm. ce qui veut dire que un million de ménages sénégalais considérant peut-être dix personnes par euh, ménage vous avez dix millions de personnes soit 66 pour cent en tout cas les deux tiers des sénégalais qui sont dans des situations vulnérables. Mm-hmm. dañu ndóol dañu ñàkk. alors est-ce que xamuñu ni ñoom seen décision yi dafa créé waat de nouveaux comme combien de nouveaux pauvres actuellement par exemple mën na ma jël rek cas par exemple les chauffeurs mais ñoo ngi waroon déplacé wu jógee par exemple Thiès ñëw Dakar yor seen oto di ci suturoo bu njëkk ñoom ñoo doon sutaal seen bopp ak seen njaboot ñu mais ñooñu mënatuñ ko man j'ai vu une image boo xam ni dama ñëw ñu jéggi benn doo daan ay nit taxaw yor ay pot ni ñun ay chauffeurs lañu dañuy yelwaan mm-hmm. mais j'ai pleuré. d' accord euh, professeur sànq say euh, biir euh, kàddu forna yaa ngi wax euh, par rapport ak excès de communication bu ñu def autour de la maladie yaa ngi tudd aussi nouvel ordre mondial te nouvel ordre mondial bu ñu fàttiku fàttalikoo rek si discours yi nga xam ne président de la république Macky Sall jot na ko yëkkati par rapport ak feebar bi gis nañ à chaque fois day ñëwaat si discours am le président français aussi ak Emmanuel Macron aussi day ñëwaat si nekk na loo xam ne dañ ko war a euh, dendale donc qu'est-ce qui se cache derrière euh, cette maladie mais mais très belle euh, question très bonne question mm-hmm. euh, cette maladie li ci caché il faut ma ñëw ëmp peu en arrière sur deux éléments benn élément bu njëkk bi mooy le discours de Macky Sall bi muy def état d'urgence bi mm-hmm. est-ce que gis nga discours bi ni mu ko structuré mm-hmm. li mu doon njëkk a wax mooy lan problème yoo xam si ça se place dans le monde et non pas au Sénégal nga xam ni problème bi même su fekkente ni euh, c'est un problème en Chine peut-être aux États-Unis en Europe mais ça ne l'était pas au Sénégal bien vrai que ni xam na ni euh, bon il gouverne euh, gouverner c'est prévoir dañu toog croiser seeni loxo mais dans son discours il a parlé d'abord le quoi de 140 pays qui sont touchés mm-hmm. le Sénégal n'est pas épargné mm-hmm. te boobu on avait 71 79 cas dont huit guéris il parle de trois cent quarante mille personnes qui sont infectées il parle de personnes tuées personnes alors que le cancer boo ko boolee cancer yëpp laa wax nag cancer yëpp boo ko boolee tue plus de neuf millions de personnes par an mm-hmm. dans le monde plus de neuf millions de personnes bi Covid 19 bi commencé ak léegi nii cancer rey na pratiquement plus de cinq millions de personnes et les gens n'en parlent pas. Mm-hmm. n'est-ce pas alors <clears throat> loolu ci nga doon gis ni kon effectivement ñoom ils ont un agenda caché boo xam ne ci lañ bëgg a jëm et malheureusement on a utilisé notre président ci agenda boobu ki n'est pas le nôtre mm-hmm. cet agenda la n'est pas en fait euh, le nôtre mm-hmm. alors loolu c'est un premier élément le second élément c'est quoi c'est que ya <clears throat> y a une élite dite euh, de euh, génne ci société secrète yi mm-hmm. alors am une projection ak gis-gis bu ñu am ci adduna nu mu war a doxee loolu nag du ñoom rek ñoo ko am aussi il faut avoir en fait l'honnêteté de le reconnaître islam aussi gis-gis boobu la am parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla di yónni dafa wax ne ko wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas kaafatan linnaas mooy dañ ko yónni ci ñëpp ku ñu yónni ci ñëpp nag nit ñëpp nekk ci ñëpp kon sa yónnent boobu bu dajee da ngay am une vision globale n'est-ce pas la même chose la seytaane am aussi mooy fexe ba am aussi une emprise mondiale sur les êtres ñi nekk ci kaw suuf si. Mm-hmm. donc ce projet la <clears throat> boo xoolee les Illuminati ñoom ñoo ko njëkk en tout cas structuré le 1er mai 1776 euh, en Bavière en Allemagne avec euh, Adam Weishaupt euh, les Illuminés de Bavière. alors bi ñu ko amee gis nga ils ont ils se sont étaient impliqués dans la révolution euh, américaine la guerre d'indépendance américaine la révolution française et cetera boobu il fallait euh, démettre en tout cas la monarchie. Mm -hmm. pour instaurer euh, euh, la république. Mm -hmm. ce qu'ils ont réussi alors bi ñu ko defee <coughs> euh, gis nañu su ma la renvoyé ci une lettre boo xam ni c'était le le 14 août. 1871. Mm-hmm. Mm-hmm. bu Albert Pike adressé woon à Manzini il lui parlait en tout cas de cette gouvernance de ce gouvernement mondial là. Mm-hmm. de ce nouvel ordre mondial là. en 1871 déjà mais daf ko doon wax ni ko pour mën accéder en tout cas a euh, cette nouvelle ordre mondial il fallait créer trois guerres mondiales et trois grandes révolutions mm. adressé à Manzini laa la wax li ma la wax soo demee ci Pound in the Game bu William Guy Carr da nga ko da ko ci fekk c'est un officier canadien n'est-ce pas <coughs> euh, des pions sur sur l'échiquier mmh. alors il lui parlait de fomenter trois guerres mondiales et de créer trois grandes révolutions pour mettre la destinée, en tout cas de cette terre-là, sous l'empreinte de, de, de, Satan. C'est ça le projet. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Donc, 43 ans après, le Première Guerre mondiale, seconde, 43 ans après, bi mu amee <coughs> euh, j'explique parce que concept la boo xam ne ñu bari dañ ko comprendre mais le, la première guerre mondiale bi mu amee qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que d'abord la révolution bolchevique <coughs> loolu bokk na ci li tax ñu taal cette première guerre mondiale ils ont réussi en tout cas à chasser le tsar pour euh, installer en fait euh, Lénine euh, euh, comment elle s'appelle encore Lénine deuxième chose c'est pour mettre fin en tout cas à euh, au xalif xilaafa islamique xilaafa mhm. islamique en 1924 mhm. la ñu supprimer le xilaafa islamique depuis bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ba 1924 jullit yi ñoo ngi doon am kilifa mhm. depuis laa wax mais depuis 1924 ba fii ma toog ni jullit yi amatuñu kilifa en tout cas bi ñu ko créé 1924 cinq ans lañ ci teg ñu créé Vatican. Mmh. avec le traité de Latran tegaat ci trois ans créé Arabie Saoudite beaucoup de gens ignorent lañ ko créé. en 1932 chasser la la la famille du prophète là-bas. Mhm. donc euh, tey ñoom ñoo nekk Jordanie Abdallah seen seen descendant la le roi de Jordanie ak ñi demoon Irak mais ils ont été rattrapés aussi on les a assassinés alors ci lañ créé Arabie Saoudite ci lañ créé la banque des banques le BIRD. n'est-ce pas. def deuxième guerre mondiale créer Israël créer en tout cas euh, aux Nations Unies donc mu suppléer SDN certes c'est vrai def la déclaration universelle des droits de créer OMS bi ñuy wax ni actuellement ak yeneen structure créer aussi le club Bilderberg maintenant pour man euh, véritablement égaler en fait seen projet yooyu. Mm-hmm. bi ñu ko defee mais xam nga boobu y avait ce en tout cas la bipolarité entre les États-Unis et la Russie mm-hmm. ci guerre froide bi ba bi mur de Berlin daanoo. mais bi mu daanoo nag effectivement ci relancer waat ce projet parce que loolu moo leen handicapé woon. Mm-hmm. bi ñu ko relancer maintenant ils ont créé d' abord ce que par bëggoon wut euh, benn lay euh, par le terrorisme international. Euh, en 2000 notamment aux États-Unis le porte-étendard mm-hmm. donc Bush ils ont créé ces attentats là un peu partout dans le monde un peu partout nga xam ne ñi koy créer boo demee ba ci biir da nga gis ni seen loxo moo ci nekkaat. Mm-hmm. c'était aux États-Unis en Angleterre donc en Espagne en France euh, New Delhi un peu partout même en Afrique. Mm-hmm. Burkina Faso euh, Côte d'Ivoire et cetera même Mali fii ils ont fait des des, des attentats pour wax nit ñi leen léegi vous n'êtes plus en sécurité. il faudrait maintenant une gouvernance mondiale cette gouvernance mondiale là moo ñu yóbbu nag ci gouvernement mondial bi parce que les institutions sont là maintenant il faudrait que nit ñi comprendre ni maintenant les enjeux sont des enjeux globaux. Mm -hmm. Il faudrait que défi de c'est des défis globaux. Il faudrait que maintenant une entité globale qui puisse en tout cas piloter ces, ces questions-là pour les gérer et non plus laisser en tout cas les États chacun en ce qui le concerne pour les gérer. Donc c'était ça le premier projet, euh, euh, euh, le terrorisme. Mm Ensuite, ça n'a pas marché comme c'était prévu. Mm -hmm. Ils sont venus sur <coughs> un autre élément aussi, mm -hmm. globalisé, c'est la démographie mondiale. Mm-hmm. Euh, boo xoolee 74 souvent on avait on était à milliards de personnes sur terre actuellement on est presque à. 7 milliards 700 millions. Mm-hmm. donc il fallait aussi jéem a yëkkati cette question là comme ni ko Bill Gates di waxee comme mm-hmm. ñoom Sarko et cetera pour gérer cette démographie mondiale là. ah mm-hmm. mais éco bi li ñu ci xaar aussi ba tey c'est pas plus favorable ils sont passés en tout cas au réchauffement climatique. ni li ma le réchauffement climatique pour leur nous sommes menacés gis nañ changement climatique yi am te réchauffement boobu ça va pas épargner les États-Unis mm-hmm. wala boog du épargner Sénégal dal ci kaw États-Unis mm-hmm. ñun ñëpp ñoo koy bokkandoo mm-hmm. alors puisque nag ça n'a pas aussi ils ont créé en fait cette euh, ce guerre virus là sanitaire. ils ont une guerre sanitaire ils ont créé une crise sanitaire pour que àdduna bi yëpp im euh, euh, euh, wu ci nit ñëpp gisandoo nit ñi di dee comme des mouches bu boobaa ñu ne ah, véritablement nag il faudrait que ñu dem ci loolu moo tax tout de suite bi mu amee rek gis nga Sarko euh, comment il s'appelle encore. Macron. Macron il a parlé en tout cas de de guerre. Mm-hmm. pratiquement sept fois ci discours am mais nee na nous sommes en guerre à à six reprises et Macky le reprend ci semaine bi ci topp ni nous sommes en guerre mondiale. Mm-hmm. voilà encore les enjeux donc il fallait ñu tiital nit ñi mais war leen ni leen actuellement ñun ñëpp nous sommes sans défense te y a un ennemi qui nous qui est là qui est invisible qui va nous détruire il faudrait que ñu dem wuti protection et cette protection là ki ñu ko mën a may en fait c'est ces sont ces élites là. d'accord hmm. d'accord pour euh, éclaircissement yi euh, professeur sans que euh, yaa ngi def sa argumentaire par rapport ak